Tape 3 d'école au Sénégal D'accord À école e au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter Tape école au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées ci loolu nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dalal na ci Abu Jandal ni len man xamna naa li may def ba taxna ñom ñepp ñépp ndeysaan seen xol yi jeex ba mu santaane loo xam ne santaane na ko di tekk di dégloowaat mais ni ñuy deglo leneen digal mu digal leen digal li ñetti yoon ni leen nan yeggale fi umra bi ndaysan waye bi mu laaje soxna ci pexé soxna si jox na ko mu wér mu rafet sax booy diisoo rek diisool lak borom xalaat bu rafet waye ki lay yene lu bax waye nag lu mu lay yene yene lu baxet xol ko ba xam ndax ku xam dara la wala de ndax lu mu lay yene yene lu bax bu fekke xamul limuy wax am ci yow yene ju rafet rek yene yéeneem upp mun la waxal ba waxal la sax lu lor ndax mom bugul dara lu la metti bugul dara lu la nakari waye nak yalla daf ko dimbali itam nak mu xam dëgg ñi nga xamni itam ñom la sekkal mbir mi itam ni di ay do di ay njabotam ndax mom kenn la ci ummahatul muminin sallallahu alaihi wasallam mom woor nako ni li mu négocié kat woor nako ni ci la nek te ëllëg ci la ko sunu borom tabaaraka wa taala di defal ndam dem nañu ba naan bari ko laajaat naan ko xanaa du yaa géntoon xanaa du yaa géntoon ne gis nga nuy wër kaaba gi mun neen ah waaw gis naa nuy wër kaaba gi yàlla war na ma ko ci gént man nay léegi mën nay de déwan waaye yàlla war na ma ko li wér te wóor xam naa ne yàlla dina ma ko defal ndax yàlla lu mu ma ma sa wax lu ma lu ma woon rek dëgg la ndaxte ku ne wax nañ ko ci tàmbali ba ruya al anbiya yi moom xàq ci biir euh, yu baree baree baree bare feeñ na ci yoo xam ni ay lëson la ay jàngale la ay jàngin la ay xikam la yoo xam ni yu ñu mën a jëriñoo la yu lislaam jàngale la mooy topp ndigal ak topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam feeñ na ci ni nit ki dafa war a topp ndigal li nga xam ne mooy li yàlla digle ak ki ko yàlla jaarale ci moom ni ko defal nañu def nii nañu wax lii euh, bokk na ci itam jébbal koo jébbal sa bopp mbir mi nga xamni jox nga ko akam tek ko fiñ ko wara tek ndax omar radiyallahu anhu kat wax deug yalla jox na mbir mi akam ndax kenn la ci sahaba yi waye nak bi nga xamé ni gaay jaxlé nañu ba am lu ñuy ñu ramtu wala ñu diko ngur ngurlu mom daf ko wax ci kaw niko ndax du suñu non yi ñoo nekk ci jaxaan mu ne akay ah mu ne du nekk ci deug mu akay ah lu tax na ngay nangu yi mu expliquer ko nag moom xam xamal ko ni ko borom bi tabaaraka wa taala réeréwu ci ak moom te lu mu def rek mooy la gën la mu deful te gisoon nañu ni sart yi dafa metti ndeysaan gisoon nañ ni liñ ci teg jullit ñi metti na waaye nag moom mi ko nangoo woon a tegoo am na lu taxoon ñu mu nangu koo tegoo ba tax na ñoom ñëpp mujj nañoo réccu gisin woowu ñu gisoon wa thala tilka alxaadisa darsan lahum fi ma staqbalu min xayaatihim فكان زهيل بن حنيف رضي الله عنه يقول اتهموا رأيكم من يين دي دما ديفني سين سين خلات بي نين خلات دا نين كو ورا ساني ndax da ngeen ko bu jub ma abi jandal mu ne ah wallaay bi nga abu jandal ولو استطيعوا سفكون مناكو ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردته مني سوغن خولي بس بي ديلو ابو جندل ولا كيرو سفكون منون نما ديلو ديغل يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخه كون ديناكو ديلو واي تي خول فامي موجي وبقي عمر رضي الله عنه زمنا طويلا متخوفا ان ينزل الله به عقابا لما قاله يوم الحديبيه عمر توغنا اي ات nee na toog naa lu yàgg yàgg di xaarat xalaat rek defe ne yàlla dina wàccee ci man mbugal wala mu wàccee ci man aaya buy wax ci man di di sikkal li nga xam ne moom laa def keroog yow ma xuday bi wa kaana yaqulu fa ma zalat asumu wa wa atiqu min min min allazi sanatu maxaafata kalaami allazi takallamtu bihi yowma isin wa huwa alqaari radiallahu anhu wa huwa alqaari radiallahu anhu desan moom Omar de it na man de wax deug yalla bu dañ di di di saraxé di wor ndax rek jëf jima jëfone bisu kéro ci ci jif bi ma def jëf wax jima waxone bisu kéro diko di yunus bi sallallahu alayhi wasallam nako xana du no nek ci deug xana du ñu ñoo nekk ci jaxaan lutax noy nangu ñak fayda gi dedet mu ne de Omar mosoon na wax wax ju mel non ci bi mu taxawé di fon di fon hadirul aswad naan ko inni alamu annaka xajarun la tadur wala tanfax man de xam naa ne aw xeer nga woo xam ne wax dëgg yàlla yaakaaruma ni dangay jëriñ baa ngay lor waaye nag lawla laa raaytu rasulallahi salallahu alayhi wa sallam yuqabbilu ko waaye nag bu dul wanteeg li ma gis yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu doon la foon walaay kontuma la foon nga xam ne moom rek ak dëggam la du nëbb fenn du ko nëbb kenn fa alima sahabatu min asulxil xudaybiya طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وإن خالف ذلك العقول والنفوس ففي طاعته صلى الله عليه وسلم الصلاة المتضمن لسعادة الدنيا والآخرة آه، صحابة الكرام جسنا يوني كتب يوني صلى الله عليه وسلم كلا جامنك ومتووتي كو تيمبيرام كلي مولي غلي nga taxaw ci coocu la lolou moy lolou mo donte donte ànd sa xel àndu ci wala donte sa bakkat andu ci waye ci la jamm nek, ci la yiw nek te nak lolou mo upp sécurité ci doomu adama te xek doomu adama fofu lay jaar ci top digelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te sulh bi nga xamne moy sulhul hudaybiyah di li ñu négocier ba nga xamne ne signante nañu pacte bi te yalla barkel ko lol nak ci la yu bare bare bare siwe, ci lañu gisse ci nga gisse ci nga gisee yu bare bare yoo xam ne yu yu yitteel la rawatina yitteel boo xam ne suwaraa yitteel na ko diisoo yitteel na ko waaye wa makaanatul mar'ati fil islaam wa ahamiyatul qudwa al ilmiya mawqifan waxid dafa am benn taxawaay boo xam ne yitteel xam-xam ak yitteel gis-gis moo ca yeggale nit ci taxawaay yooyu mu ne nag waaye ak xam palaasu jigéen boo xam ne lislaam teg na fa jigéen ci fonk gum ko fonk ak xalaat bu mu doyloo ay xalaatam yi nga xam ne mooy aw yoon ni muy doyloo xalaat yoo xam ni xalaati góor ñu daaw góor ñu aw yoon lañu ndax noonu kat ni lislaam doyloo xalaatu jigéen te mu aw yoon noonu la ñàkk doyloo xalaatam yu awul yoon waaye noonu la ñàkk doyloo xalaatu góor yi awul yoon moo tax euh, imam ahmad mi ngi solo ci sanadam ba ci taarix boo xam ne almusawar almaswar bin maxramata ak marwan ibnu alxakam radiallahu anhuma qisata sulxin xudaybiya ñoom qisatu sulxul xudaybiya boo demee ci masnadu imaam ahmad daf ko fay wax ci xadis yoo xam ne xadis bu gudd la mooy wax naan lamma tamma sulxu bayna nabii salallahu alayhi wa sallam ba musrike qurays qama Rasul sallallahu alaihi wasallam Fakal ya ayuhan nas anhuru wahliqu qala fama qama ahadun mu ne solo Hudaybiyya ba mu jeexe ba yonent bi jóg ne ah yéen nit ñi jóg leen yéen nit rendi leen seen xadu yi ngeen indi woon te watu ji defaru gaa yi ni cel seen celaaral googu ah fa ma sa anu naa si waaye bi mu duggee ci umu salamata ba waxam moom mu ni ko nga ne nit ñi luy seen mbir lan mooy seen problème yaa rasulallahi mu ni ko xadd xadahum maa xat yow kat gis nga li nga li nga gis rek falaa tukallimanna minhum ah insaanan yow di gis nga lii gis naa ko waaye bu ci wax ak kenn dara bu leen wax dara waa tamit ilaa hadika xaytu kaana jubalal fa nga yeewoon sa hadiyu ba fee nga sawoon euh, gàtt ba wala wala giléem ga nga xam ne fa nga ko yeewoon wala fa nga mu mu mu di la xaar jubal fa nga rendi rendil sa rendi te wo sa kat mu wat la li la sallallahu alaihi wasallam def li la yalla dimbalé kérok sahabatul kiram kérok li la dimbalé judit ni ñu mucc tey waaye keroog bu ñu esegoon maara dayam si ra'yu umu salamata bi ci leneen sunu borom tabaraka wa taala dimbalé mu nek mawqifan wa mashura mu def ak mu jigen joju mu saawara mubaaraka boo وبذلك الدليل على استحسان مصاورة المرأة الفاضلة دي سوك جيجن جباخ ما دامت سات فكر صائم فيك mbaxam gogu boole na ci xam xam ak ràññee waaye bu mu yiw rek baax rek sedd rek nga ne ah sotti ne kon kat kii jigéen ju bax la nee nañu ma woon di solo jigéen ju bax bu xamul dara moytul de bu xamul dara lay mbaaxam googu mën na la duggal ci yenen jéeya ndax day baax ba defee ni lépp baax nag te fekk na am na lu yàlla dafa bind lu baax waaye iblis taxaw fee di taxaw taxawaayu safaan ba loolu nag ki amul xam-xam ràññeewul lu lu baax rek du ko xam imaamu Malik ibnu Anas borom ngir mi daf ko daan wax daf daan wax ni moytu leen nit ku baax ku yiwa yiwa yiw ku bëgg ak jaamu yàlla te xamul dara nee na kooku bul jël ci moom diine nee moytu leen ko mu ne moytul nit koo xam ne itam ku bari caaxaan la ku bari caaxaan la euh, koo xam ni moom foloo nit ñi ñuy rey rek mooy yitteem nee koo koy itam moytul jël ci moom diine ndax gis nga kafam gu métti googu bu mu def ko métti nee na mën naa yegg ba ci diineem mu foye ko wala mu kafe ko euh, bu ko defee boo ko jëlee ci moom fekk la nga jël ndekete ci dama doon kaf rek lay mujj yow. mune <laughs> koku na ngeen koy moytu baax lol bëgg diine lol nangoo son ci jaamu yalla lol te jàngoo xamo laaji woña xam mune koku moytu len ko motax jigen ju baxit it la ne jëlal ci mom ay xalaat ah na nga set ka ca am culture générale ka ca am xam-xamu diine ka ca ka nga xam ne léegi li nga koy laat dal am na ci xibra manam am na ci experience bu wor ni ki li nga koy laat lu mu xam la rek bu la jubee ci kat lu mu la digal nga def ah fu mu la ne aw fa foy bëgg aw boko boko boko ko bo ko xamu ci dara sax mbaaxam mën na koo yóbbu ci mu ne la bax na ta fekk na lola bokul ak la gën motax tax mu ne jigéen ju bax nga disok mom waye fek mi ngi nek borom xalaat bu rafet waye fek mi ngi nek borom xam-xam bo xamni bu la xalaatale dina la indi lu jup kama annahu la farqa fi islam bayna an ta'ti al musawara fi min rajulin aw imraatin طالما annaha mushawara saa iba fekk nag diisoo boobu ak réunion yooyu mu ngi nekk di du tegu ci yoon nga ànd ko ñi ngi ko war a àndal ak ñi xam ci mbir mi dara su boobaa amu ci góor amu ci jigéen ndax organisation bi xayaat bi dund gi laaj moom ngay am moom ngay gis ndax borom bi daf ne wallazina stajabu li rabbihim wa qaamu solata wa amruhum suwara baynahum wa mimma razaqnahum yunfiqun loolu lañu yàlla wax ci alquran ci suratu suwara saar wa sax saaru diisoo la ko tuddee saaru yëgoo ak waxtaan la ko tuddee ci aaye 38 bu fa demee danga fay fekk loolu ci nangu gu di bi sallallahu alayhi wa sallam nangu musaawara ak soxnaam si di umu salamata ci la yàlla terale xeet wi takrimun lil mara ndax daf cee teral jigéen moom sallallahu alayhi te daf doon wax ni maa akramahunna illa karimun jigéen ñi kenn du leen teral ku lu ko tedd waaye kenn du leen doyadal lu dul baadoo wa ma ahanahunna illa la imun benn waaye def ni jigéen ñi daal ay dàll rekk lañu dàll nag yaa koy jënd sol ko mbaa nga àbb ko sol ko léegi nag soo ko solee saa yu la neexee nga sansé ko saa yu la neexee itam nag bu dëggee nga sànni bu dëggee nga sànni bu la sàppee nga sansé ñu ñëw ci xakim bi ci boroom xam-xam bu jiw bi ndeysaan te baax laaj ko ko ni ko ah diw de li mu wax rëy na mu ne diw man ñu expliqué ko waaje mu ne waaje na ñu expliqué ko ba mu xam waaje mu ne ah waa xam naa ko ngeen ni lu mu wax ñu ni ko ah moom de dana jigéen ñi daal ay dàll lañu rek boo leen soxlaa jëlal bu ñu màggatee booy boo sànni bu ñu daggee nga sànni bu ñu la sàppee nga sànni ay dàll lañu rek boo bëggee sol solal saa yoo bëggee sensé sensé mu ne ah jigéen de daal daal daal la ci baadoo la buy taxawaalu rek kuy taxawaalu rek jëmoo fenn mu ne daal la ci kooku kooku mën naa def jigéen aw daal waaye jigéen couronne la ci ko xam ne buur nga kuy buur am ji koy buur ku ne couronne ba muy takk mu ne ca kaw boppam nee na moom mooy jigéen cikk ci jigéen ci kii couronne la waaye jigéen ci kële aw daal la mu ne ah jigéen mën naa doon aw dàll ci moom de ndax moom day taxawaalu te jëmul fenn ko waaye di la yu xeebu lay def yu xeebu lay wax kooku mën naa tuddi jigéen aw daal da ko koy tuddee nag mu ne tudd rek lay doon ci moom moom day tuddee jigéen daal waaye du mas am jigéen bu mu def daal du ko mas a am ndax jigéen ñi nanguwuñu ku leen def daal nangu nañu ku leen def couronne waaye nanguwuñu ku leen def daal diw moomu nee leen ko moom dana yéex a amu daal ndax ginnaaw jigéen ñii la tuddee daal ne bu ñu daggee nga sànni bu ñu la sàppee nga sànni bu ñu la sàppee nga sànse bu ñu la nga sànse bu daggee nga sànni mu ne kooku nee leen ko dana yéex a amu daal ndax kii def tuddee jigéen aw daal kooku mooy taxawaalukat bu wayee di bu jëmul fenn kooku day wut daal wu mu waaxoo waaye bu dee jigéen a du ko am nee leen ko jigéen mooy kuroon ci buur jigéen couronne la ci ku yor jikkoy buur jigéen couronne la ci buur ci digg boppam la koy teg defar ko ba mu rafet defar ko ba mu naayis ne naayis naayisal ko ba mu jekk mu teg ko ca kaw mu féete kaw ni noonu dara waru ko loolu lu mu am jox ko lu mu bëgg mu defal ko ndax yiw rek lay dox yiw rek lay wax waaye nag mu naa mu ne ko baadoole bi nga xam nag moom daal doom ma la fas yéenee bu dana dana bu yeboon ak ràbbi ràbbi aw daal waaye du am jigéen du am jigéen bu mu def daal du am jigéen bu mu def daal xakim bi moom philosophe bi moom foofu la tontoo waa ji moo tax nag sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne couronne la defoon jigéen def ko lu gën a kawe couronne def ko taqal ko ci moom di diisoog moom reconnaître léppam teraangaam ak ak ak mbaaxaayam ak ormaam ormaal ormaal xalaatam ba ormaal diisoog moom te ab bu yàlla yoon nekk nabi mursal wa ahmadu nabi sallallahu alayhi wa musaawara googu mu defoon ak jigéen aka ko sagal aka sagal jigéen waaye aka sagal jamono waaye aka dimbali jamono waaye aka dimbali jullit ñi waaye aka dimbali àddina ba faw boo xam ni jigéen ñi jigéen ñi amee nañu ci àddina bi amee na ngëneel ci jigéen ba faaw ba yowmal xiyaam amee na ngëneel ci bi yonentam boo xam ni jigéen a ko ko may wa fi haadal mawqif aydan at taakid ala ahamiyati al qudwa العملية فقد دعا رسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر ووكره ومع ذلك لم يستجب أحد لدعوته فلما أقلم رسول صلى الله عليه وسلم على الخطوة العملية التي أشارت بها أم سلمة رضي الله عنها تحقق المراد فالقدوة العملية أدى وأنفع خاصة في مثل هذه المواقف صلى الله عليه وسلم mbiru njit da fay feñ fi bo ne mat na njit seuk ndax bi mu digalee ñi mu wara digal ba nopi ba baamtuwaat digal di te defuñu ko tontu len waxatu lak ñom dafa wuti pexé ba muy wuti pexé fam wara jëm rek la jëm togul ni dama jaxlé ba koku ñew ni ko lula jaxal dedet lolou mi ngi ko tambalé won ci xaru Hira ba alquran wacce ci mom tamu am jaxlé ba mu diké togol rek jaxlé ñu ñu diko jëme fenen wala ñepp di ca jot wala kennam di ca jot waye soxnam la jëk waxal liko jaxal problème koy wax ki ko wara wax mu yam fi mu wara a waxo ko ki ko wara wax dana yegg fo bëggul mu yegg fa sallallahu alaihi wasallam mi mi kat bu mag bi nak te njit lu mag li te mat njit ba mu demee ba jaaxle dafa dugg ci biir wax ak kam wara waxal waye bobu bo won ñett ak ñent rek duggaat ak ñom ci biir ñooñu xalaat yi ci biti lañ koy indil ci biir dekk bi tass waye nak njit gu mat njit dëggal boppam dëggal pas-pasam dëggal fi nga xam moy fofu la yo fofu yoon wu jup bi nit wara jaar motax mu jëm fi mu wara jëm lolou jangale la mu reuy mo do nako ci jangal nit bokk na ci itam njàngale yu njëriñ yi ak njëriñ yu rëy yi nga xam ne am na ci sulhul Hudaybiya ni musrika Quraysi yi nga xam ne ñooy bokkaalekatu yàlla ya doon yéefar ya ak saay saay saay nga xam ne ko ñoo doon ahlu fujuur isa talabu amran yuaddimuuna fihi xurmatan min xurmatillah taala ajibu ilayhi wa aatuuhu wa aynu alayhi fa yuaawinuuna ala ma fihi taadima xurmatillahi taala laa ala kufrihim wa baxyihim wa yamnacuuna mimma siwa dalika qala zahriyi wa dalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laa yasaluuna xutatan yucadimuuna fiha xurumaati llah illaa aataytuhum iyaaha bokk na ci loo ci jànge ni waa ak lu ñu mënoon a bëgg ak lu ñu mënoon di wut dañoo laqu woon ci ginnaaw néegu yàlla bi ci ginnaaw ci ginnaaw xaram bi ci ginnaaw xurumaati la yàlla xormaal foofu nga xam li sart buñ ciy joxe dañ naan nangam ak nangam dal di tudd néegu yàlla bi tudd màkkatal mu karama tudd amaakin yi place yu sell yooyu bokkoon na ci seen stratégie buñ doon jëfandikoo pour que seeni mbir mën a gaaw am Tu Ici au Sénégal Tu peux facilement avoir accès à école au Sénégal